asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 16 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy tey dooreete ko mu mel ni ki yëglikaay ba nag tey moom ñamuñu xëy woon mooy Boy Niang ak Lac de Guiers numéro 2 boo xam ne daal ñu nga taxaw ñoom ñaar di lewaatoo la ca am nag yëglekaay bi ne daal li am ba des daal daa mel ni réew mi diggante Boy Niang ak Tapha Tine la ñuy laaj combat boobu daal fi mu nekk nii maanaam demande social la sunu làmb xëy tey wax nu ko waaye ne daal booy Niang moom jamono jooju nga xam ne nii nit ñi bëgg nañ diggante mag tafaatin moom daa mel ni la ko gën a neex daal mooy ab leeral ci digganteem ak ki nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2 mi nga xam ne bëri nañu ñoom ñaar te Lac de Guiers numéro 2 am ndam ci kawam par recours loolu daal daa mel ni moo gënal booy Niang dem daal jàmmaarloo ji ak kii di Lac leeral seen diggante nañ daal dafa mel ni moo ko gënal muy jël avance su tafaatin yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu xibaar bu mel ni ki noonu beneen combat boo xam ne ni moom fi mu nekk nii daa mel ni bés deful ndànk daal ah morne lay doon maanaam daal juddu ba pare daal dafay jaare yem fa muy diggante guy gi ak nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom sunu làmb andil ñu nag argument ya nga xam ne nii moom la guy gi daal di teg mu mel ni ki daal kon combat boobu daal fi mu nekk nii moom ku ko doon xaar daal est ce que boo yeboo doo waaj a xaddi ndax daa mel ni ba tey daal taxaw defagu ko yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko beneen combat boo xam ne ni moom taxawoon na bañ na siiwal ko muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé ki ko tëggoon di Luc Nicolaï wala ki ko tëgg di Luc Nicolaï mel ni que nag combat ba fi mu nekk nii daal daa mel ni yëglikaay ba xëy nay laaj ndax Modou Lo mii ndax du woon lig ginnaaw dem jëli beneen contrat wala signé ji leneen parce que nag yëglikaay bi jàpp na ne xëy na comme ñoom ñaar signé guñu lu leer te lig mu ngi ci kaso ba loolu moo tax yëglikaay bi xëy tey samp boobu la laaj beneen xale boo xam ne nii moom am na defi boo xam ne moo koy xaar mu war koo relever muy ki nga xam ne nii mooy gin bu yof digganteem ak ka nga xam ne moo di bulldozer daal lañ ne est-ce que du moom defi moo koy xaar foofu boo boog am na défi bi ko fay xaar ngir mu war a relever boobu défi keneen koo xam ne ni moom defi ba mu bëgg a relever benn la muy maam Balla bu Pikine mbooloo maam Balla nag moom que mu xëy dëkk ay loxo mooy ne kuréel mi mu jàpp ne des ko fee bàyyi maam Balla ne na moom nañ ko ko jox mu lijjante ay affaire am jàmmaarloo ak di bëre ak moom keneen koo xam ne ni moom ab kombaam dañ koo siiwaloon wala mboog mu nekkoon ay rumeur muy diggante ma Mandione ak Double Tyson bu Saloum ma Mandione nag moom ci ki nga xam ne nii moom moo di Xalima ak Abdoulaye ma ca Kaolack daal xëy na leeral nañ moom daal mu ngay leeral ne diggante ma kook nga xam ne moo di Double Tyson daal Baye Mandione weddi na ko ba mu set wecc loolu yëglikaay bi xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii ba tey mu ngi ci yëglikaay bi di sunu làmb muy Valdo mi nga xam ne ni daal sunu lamb na na am na dix victoire benn defet maanaam mu nekk mbër moo xam ne daal daa mel ni tànki Mohamed Ndaw Tyson may tedd filam daal fa la bëgg aw wala fa la jaar keneen koo xam ne nii moom fu muy jaar ba relancer waat moom la ñu xëy tey samp ko muy laay Pythagore mel ni ki moom fi mu nekk nii daal fa muy jaar ba relancer wu demaat loolu la yëglikaay bi xëy tey ñëw dina ko wax mel ni ki nag fi mu nekk nii daal loolu sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noonu bu buñ fa jógee nag dañuy dem fa nga xam ne nii moo di ca Leewtoo TV mel ni ki nag foofa moom Siteu moom mu nga fa xëy di indi ay leeral yu yaatoo yaatu ci digganteem ak ay nitam yoo xam ne dañ leen doon tudd ci wàllum dorog Siteu moom leeral na ne moom mbirum dorog tey ëllëg waxi noppi te itam nekku ci otoom ba nga xam ne daal jàpp nañ ko lay laaj ñu jox ko ko ndax nag jàpp na ne loola daal tom tom bokkul ci ay mbiru dorog wala boog laalewucca Siteu daal mu ngay leeral ay leeral yoo xam ne ni yu leer nàññ la diggante ak tamit xaritam yooyu nga xam ne ne na amul lu dul ñoom jàpp na ne moom bàyyi leen wala muy dem di leen ba si tane na loolu moom du xalaat tey suba waxi noppi mbirum Jules Balde Junior tamit ñëw na ca jàpp na ne bëggoon na koo jàppale waaye daal la mu doon bañ mooy def yëfi saytaane parce que jàpp na ne ka moom bu ko xamee Ama Balde moo tax mu xam ko kon nee na mënu koon na jaar fenn fu dul ci Ama Balde ndax nag nee na moom du dugg ci loo xam ne nii luy jaxase ay nit lay doon wala luy féewale ay nit si ta moo wax loolu waaye waa parcelle leen ca wax ja moo xam garga deux la wala Papa Sow jàpp na ne daal ku mu ci mën a doon moom bés bu ñu ca yeggee ñoom dinañ xam ne ay ndaama lañ te ñoom ay njol lañ dañ leen di wan seen bopp bu baax a baax loolu waxi Siteu la jëmale ko ci ñi nga xam ne moo di waa Parcelles dañ fay jóge nag dem fa nga xam ne nii moom moo di ca record record nag moom tey xëy nañu andil Gris Bordeaux ak ka nga xam ne moo di Bombardier Gris Bordeaux ku ne xam na ne Balla Gaye numéro 2 war a bëreel te mu mel ni wala ki mu war a bëreel moom moo di Eumeu Sène te daa mel ni kon moom moomu Eumeu Sène moo ko mujjën na daam mu mel ni ki nag kon est-ce que rawaasu ko nga xam ne moo doon giri ak Bombardier gënu woon a jaadu ndax nag ñoom ñaar ba ñu bëree yàgg na lool record a xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii moom lanjang moo xëy tey di ko leral muy ci combat Eumeu Sène mel ni combat ba daal am na waaye nag la ca lanjang daal di teg leneen loo xam ne nii moom jàppal mu mel ni ki fi mu nekk nii mooy guy gi ak Siteu ba tey mel ni combat booba daal daa mel ni guy gi moom ca Siteu daal la ali ñëw mel loola ba tey mu nga fa ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di record mel ni ki nag fa nga xam ne nii moo di ca géejawaay diggante Balla Gaye numéro 2 ak Ahmed Aydara mel ni ki nag léegi moom ginnaaw ay jàmm yëglikaay ba xëy wax ñu ko mel ni ki nag dajawoon fa nga dajawoon nañu fa nga xam ne moo doon kër Malick Gakou àndoon fa ak ka nga ne moo di Baboy ak footballeur ba nga xam ne moo di El Hadj Ousseynou Diouf mel ni ki nag fi mu nekk moom seen diggante léegi daal jàmm nee na ñooy muy diggante Balla Gaye 2 mu géejawaay Ahmed Aydara mu géejawaay leneen loo xam ne nii fekk nañ ko ca record mel ni ki nag ci diggante ay confrère la mel ni ki daal foofa loo ci mën di dégg daal jàppal mel ni ki daal yëglikaay ba wala boog jàngat ba mooy daal xëccoo est-ce que war nay am ci seen diggante ci ñoo xam ne ñoo bokkul liggéey mel ni ki daal loo ci mën a dégg moo xam sunu làmb la record la Leewtoo la Lutte TV la wala beneen yëglikaay bu mu mën a doon bu ne ku ci nekk rek damaa jàpp ne la ngay def war nga ko mën a def te du jarub xëccoo du jar xuloo du jar ŋaayoo ndax nag comme li olof Njaay di wax rek sintu asamaan du jar boo xante waaye defe naa itam xamante bi nu xamante ak li ñu séq entre nit moo ëpp doole fukki yoon ak juróom la ñuy bind ak la ñuy wax waxante ak weddente loolu yaakaar naa yàgg maar du ko jar mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la delloo ziar ah, di la ñaanal jàmm di ko saako ci yow bu baax a baax a baax. Babacar xanaa yeewoo ko. <laughs> non yeewu naa sax damaa ndékkeegul. <laughs> da ngaa ndékkeegul kon léegi rek suñu paree rek incha allah dem nag gisante café bi wala kenkili ba bi. incha allah rabbi waaw wala café Touba gi voilà ñu ñëw nag si suñu eh, eh, daal booy ñaa daal eh, gisul lenn lu dul leeral moom ak Lac de ndax moom jàpp nañu combat bu ñu bëree woon daaw Lac de daanu ko wala boog daan bi des des naa leer Babacar. waaw donte nit ñi ñu ngi réclamé digganteem ak ki nga xam ne nii. moom moo di waaw digganteem ak tafaatin la ñuy réclamé. Mhm. waaye moom nee na li ko gënal mooy digganteem ak Lac de Guiers numéro 2. waaw mel loolu moom mooy li li si am rek ñoom ñëpp comme li wax rek ñoom ñett daal benn combat moom xam naa du ñàkk mu gën ci seen diggante. Mhm. booy ñàkk nag comme dafa jàpp ne dañ dañ ko da ngaa ñàkk ci sa diggante ak Lac de par recours te moom jàpp na ne daanuwul yaa ngi dégg ko leeral na moo tax mu bëgg combat boobu ko moom ak tafaatin la ñu gën di wax Euh, combat bi euh, journal bi tam mi ngi ñëw nag si combat bi war a dox si diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé journal bi nag mi ngi laaj samp laaj nee na nag di nga xam ne moo waaw wan ginnaaw day mën na nekk day waaw tout est possible mën na ne waaye nag yaakaaruma ko de parce que dafa am li nga xam ne nii loolu am na nit ñoo xam ne nii des seen kàddu moom bu ñu la ko xasee jox lay tax ñu dindi ko ah dana jafe te Modou Lo itam yu mel noonu parce yaakaar naa am nañ benn relation boo xam ne nii tey bu fekkee dafa am lu ñu sumboon yàlla indi ndog-ndog ci Luc Nicolaï mu nekk si loxoy buur maanaam koo gis ba loola ñu mën ci déggu parce li ma la wax rek seen diggante eh, ci li ñu xam wala li ñuy wan mooy que ay xarit la ñoom ñaar mhm. waaw bi nga xam nag moom la dox fan yëpp te taxawagul te am yaakaar yi xëy na ay eh, waxtu yu néew wala ay fan yoon dina taxaw mooy diggante guy gi ak ki nga xam ne mooy rëdd ne ñun daal négociation yi ba démb sa 21 heures daal ñu woon ci au point mort maanaam daal trouvé gu nu woon euh, consensus pour combat boobu mun taxaw surtout nag ci côté ki nga xam ne mooy guy gi. waaw lu ma la waxoon démb laa la si wax rek combat bi moom fi mu nekk nii xam naa ne complication bi ci côté guy gi la féete parce que bu dee rëg-rëg ñoom am nañu ak moom accord ba pare ba déggoo moom waaye côté guy gi mooy problème bi loolu nag li ko indi mooy xëy na guy gi position bi mu taxawee ak euh, position bi rëg-rëg taxawee mais la ma la waxoon

taxawul ki ko wax nag moo di ma Mandione mi nga xam ne moom moo war a bëri ci journal bi tamit Mame Balla mi ngi wax ni moom daal euh, pare na daal pour bëre ki nga xam ne mooy nekk réel peut-être teg si ko daan ko waaw loolu de la pare moom maam Balla bi ngeen xam maam Balla bu Pikine mbooloo borom top 5 mel ni kon moom daal fi nekk nii bëgg naa talal loxo ki nga xam ne nii moom mooy nekk a la waaw waaye moom maam Balla itam yaa xam naa su ma jumul combat am rek laa euh, xamuñu lu amaat ci diggante bi daal ba tax tey moom mu génn di laajat beneen adversaire mhm. suñ jógee na suñu laam dañuy dem si record record nag mi ngi euh, def benn papier jàngat muy diggante ki nga xam ne mooy Gris na moo waroon na euh, ki nga xam ne mooy Balla Gaye euh, jël na ki nga xam ne mooy Gris euh, moom am na ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène waaw ñoom waroon nañ mën a bërewaat parce que revanche defe naa Gris ak Bombardier su ma jumul yaakaar naa atum 2007 la woon waaw booba ak tey ay at yu bëri dox na fi macha allah tey nag revanche bi mu ñëwee demeewul nañ ko doon xaare mm. parce que xëy na bu doon dañuy xaar Gris ak Bombardier ji ñu ramasser seen combat loola mu jogul am yaa ngi dégg revanche bi nga xam ne moo mujj am mooy diggante Eumeu Sène ak Bombardier te Bombardier Eumeu Sène ci la mujj takke ngeen ma bëre kon moo lay wan ne lamb moom li ñuy wax rek du biir de xëy wasin lépp ci mën a ne Gris tamit ki mujj bëreel mu daan ko mooy Balla Gaye 2 tey moom lay revanchal mel ni kon daal gis nga lamb rek nu nekk lay dikkee daal mhm. euh, suñ jógee nag foofu nag ni euh, journal bi mi ngi teral ki taxaw nag waaye nag au waxanteeg ak manager jox leen avance mais au niveau du CNG combat bi mënagul taxaw ndax ubbeeguñ ko Babacar. waaw loolu moom wax ju leer nañ defe naa leeral nga ko lamb moom bu fekkente ne dañ ne taxaw na actuellement lamb yi ñu wax ne taxaw na yëpp maanaam waxtaan la ba déggoo diggante promoteur bi ak mbër yi ak manager ba ñu génnee weccet joxe maanaam dog njëg yaa ngi dégg taxawul siiwal ne combat bi taxaw na loolu defe naa noonu la lamb ji doxee bu ñu a au niveau du CNC mais tamit mën nañ fi muy officiel li tax ñu mën a diw ak diw taxaw na rek mooy ay langage la maanaam kàddu la mu ñëw tey comme tey Euh, Gris Bordeaux ak euh, Balla Gaye parce que ku nekk joxe nga sa kàddu jox nga promoteur bi sa kàddu yaa ña nga àndal jël nga xaalisam kon defe naa dañ naan loola taxaw na diggante Coense ak ka nga xam ne mooy double moteur tamit kazalika noonu ak yeneen mm. guy euh, gi ak rëg-rëg waaw ah waaw yàlla na doon dëgg daal parce que combat bi nga xam ne siiwal nañ ko ba pare ni ñaa ngi xaar mu taxaw kon yaakaar naa daal yàlla nañ mën a déggoo ba nga xam ne combat bi dina taxaw parce que tamit combat la bu nga xam ne nii am na amateur yu bare bare bari soxla nañu ko jeune homme tamit ñi nga xam euh, ki nga xam ne mooy Balla ak euh, ki nga xam ne mooy Ahmed Aïdara waa Géeja waaye ñoom daal dem nañu comme li ñu wax rek ils ont fumé le calumet de la paix jubawaat nañu ci seen biir waa jàmm de moo gënu ay jàmm moom fu lu mënta xew moo gënu ay te dëkkandoo dafa yàgg yaa ngi dégg bu ñu bokkee gox bokk lu ñu mënta xaajoo defe naa ne fexe jàmm di am seen diggante dafay am solo trop waaye nag te di ko la lépp ci dëgg parce que lu ci bare bari rek loolu moom bu amee ànd ba mën naa neex mën naa yàgg dëgg nag moom moo am sol parce que des fois la plupart li am xam nga li li li ñu war a moytu daal muy man muy yow muy ku mu mën a doon mooy farfarloo far aayul nit ku ne am nga droit am position ne ci lii laa far waaye bul farfarloo ndax farfarloo moo lay yóbbee ci ba nit ki wàcc yoon nga ànd ak moom ne ko wàccu aw yoon loolu farfarloo la yaa ngi dégg sa nit bu faree ak moom bu nee ci dëgg àndal ak moom bu wàccee yoon woo ko ci ruq nga yedd ko ne ko da ngaa wàcc yoon defe naa bu ñu dee doxale noonu ànd yi dina mën a dëgër ñu di leen ñaanal seen ànd boobu gën dëgër parce que ñoom la suñ jógee nag record nañu dem fi nga xam ne moom mooy Leewtoo TV ak fi nga xam ne mooy Lutte TV parce que démb ñaari site yooyu yëpp ñu ngi woon ci kër site foofu si jàmm kan site nag dafa dafa woowoon ñaari euh, site yooyu noonu pour indi ay leeral si mbirum drogue boobu xam ni fan yii yëpp moom moo lëmbee fi nga xam ne moom mooy jàmm gan. waaw mu mel ni ay nitam lañ ci doon tudd waaye moom indi na ci ay leeral daal xam le ne daal moom loolu nañ koy waxee ak na mu demee du benn indi na ci ay leeral ni kon daal ku dem ca Leewtoo yoo xam ne ni site na leer na nañ la mu wax leer na la ca des nag du suñu domaine domaine ña nga xam ne ñoom lañ ko seqal la muy ay mbirum police ak yooyu ñuy mais ñuy ñaan rek lépp lu mu mënta doon rek jàmm mujj ci ba nga xam ne nii parce que ñoo bokk Sénégal ku ci nekk nga fexe xam yow role bi nga amee ci dëkk bi nga di ko jouer parce que loolu pour man moo ñuy dimbali wa ku ci nekk mën a nekk ci jàmm. ñu mën a tamit si diggante moom ak Papa Sow nee naa combat boobu diggante naama la ak ñool. waaw loolu de la wax de mais sax ne ah, na ne ndaama ak ñool te jàpp ne ñooñu du ñu dara. muy mm. Garga 2 muy Papa muy lamb yoo xam ne ni yu a neex ndax bu ñu nee Garga 2 diggante ak Mama Lamine te ku ne Mama Lamine ne Siteu. Mm. ku ne Siteu ne Mama Lamine muy ay yoo xam ne ñu ngi ñaan yàlla fekk ko te ko ku ne xam na ne diggante ba pare mais corona ba moo ñëw jaar fa mujj fa mujj ko mën a yeggale yaa ngi dégg mais xam naa daal euh, combat bi bis bu yegg seen day kumba dina neex trop ndax parcelle jàmma gën lay doon jàmbaar wrestling académie ak mhm. sama yaay mais su nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astan ne déjà Brahma chéri Khadija Diallo di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Seck chéri Khoudia Seck yaa ngi si biir nuyu ki nga xam ne mooy Taliba Cheikh euh, depuis Italie aussi yaa ngi si biir nuyu ki nga xam ne mooy Abdi Gueye euh, Papa Cité Baye Fall koy nuyu di ko jox wàccuwaayam nuyu ki nga xam ne mooy Sophie Nour ak euh, Bébé Fa ak Tabara taal euh, euh, ñoom ñëpp maa leen di nuyu ñëpp di ñaan ah. du ma ko fàtte di ko wax di nuyu waa Petersen yi waaw yi ne foofu yëpp ñoom bu mu lama ñoom ñëpp maa leen di nuyu di nuyu Mor Diouf tamit du ma ko fàtte ak ki nga xam ne moom mooy Valdo numéro 2 maa ngi bu baax a baax moom tamit foofu la nekk ak képp koo xam ne daal yaa ngi ci dëkk bi di dóor waar di ñaan yàlla tabaski bi nga xam ne moom lañ jëm yàlla nañ ci dugg bismillah rahmaan rahim la ak yàlla dimbali ba nga mën caa jot parce que li may wax rek borom jom foo ko fekk ndeysaan day sonn te ñun ñëpp pour man jom moo ñu moo tax ñuy xëy à l'heure di wàcc à l'heure di ñàkkante kon ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi jéem dara ngir bëgg a bëgg a mu ngir seen dund mën a stable yal na leen yàlla jàppale dimbali leen te jàpp na ne bépp doomu boo gis rek loolu moo ko yëkkati kon yàlla na yàlla def jàmm nawet bi yàlla def si jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam encore une fois rek ñun ñi nga xam tamit ñoo seq milieu bi di liggéey muy presse bi ñu gën a bokk ndey bokk bàyyi yaa ngi dégg jarul euh, xëccoo non non non c'est c'est inutile parce que li tax mooy mbir mi dafa yaatu ku ne mën nga bay sawar na affaire yi rafet ñu rafetal soow mi duggee ko jabi noonu la ko wolof di waxee yaakaar naa jàmm am yàlla na yàlla def jàmm day loolu am na solo lu baax Babacar ba suba incha allah jaajëf